mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi ala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziara di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi rek comme Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom dool li ko yàggal lool te wéral ko waaye di siyaar baax tey ñaanal Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall di ñaan suñu borom dool li ko yàggal lool te wéral ko di siyaar mbooleem njabootug Maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ko baaxoo defee rek ci mbooleem bunti kër Maam Cheikh tey ji nag ñu ñëw fii nga xam ne mooy Touba Palen fi nga xam ne mooy pencum Serigne Ablaye Fall Ndar di ñaanal baax a baax ki nga xam ne moo toog jotaay bi Serigne Ablaye Fall Ndar di Serigne Talla Ablaye ñaan suñu borom dool li ko yàggal loolu te wéral ko kan mooy Serigne Ablaye Fall Ndar Serigne Ablaye Fall Ndar doomi maam Cheikh Ibrahima Fall la nekk troisième xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall 1954 ba 75 euh, moom la toog ci xilaafa gi waaye liggéey fi liggéey bu am solo nag liggéey fi liggéey bu am solo mu jugee fi tey Serigne Talla toog jotaayam tey di wéyal liggéey boobu xam ngeen ne ndogu yi mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ñu ngi koy taxawu loolu nag moo waral tey euh, ñu ñëw fii nag ngir euh, nemmikuwaat nemmikuwaat ndogu yi nga xam ne waa kër Serigne Ablaye Fall Ndar ñu ngi koy togg ci mboolem buntu kër yëpp Euh, kon noonu la ñuy dugg ci biir ànd ak suñ caméraman ñu dugg ci biir xool liggéey bi waaye siyaar sëñ bi xool waañ bi dañ koy taxawoo àndaat ak yéen xam ngeen ne euh, ndogo yi buñ ko toggee ba pare dinañ ko sëf ci ay oto waaye ànd ak moom jëm fële nga xam ne mooy Touba jannatul maxwaa jëbal ko sëriñ Amdi Fall moom sëñ moo du Mbenda euh, noonu la ñu fas yéenee ànd ak yéen rek kon bu ñu ànd ak sëñ Mamour ñu dugg ci biir xool ndogo yi niñ koy toggee Moustapha Fall Fall yaay borom leer laay Fall laay laay laay laay laay Moustapha Moustapha Fall xaal yaay borom leer laay laay Fall laay laay laay laay kii kon euh, ba léegi rek ñoo ngi fii ci euh, Paleen fii nga xam ne mooy pencum Paleen ci Mbàkke fii nga xam ne mooy kër Serigne Ablaye Fall Ndar fii nag ñu taxaw mooy waañu Serigne Ablaye Fall Ndar Serigne Talla laay di ñaan suñu borom doole ko yàggal lool te wéral ko comme niñ ko baaxoo defee fekk fi soxna yi gis ngeen euh, ni ñu àndoo waaye jàppale ki nga xamante ni mooy Serigne Talla Ablaye waaye soxna Bintu Ndiaye Baye Fall ànd ak soxna yi soxna Bintu euh, ñu fekk la ñu fekkoon la fi daaw ak ren euh, lan nga ñu mën a xamalaat tuuti rek ci seen liggéey fii ci waañ wi ak xëysi gi ak bu ngeen xëysee li ngeen di njëkk a def ak fi ngeen agsi tey ba keroog weeru koor gi di jeex ak euh, ni ngeen koy jébbalee sëriñ bi. Mm-hmm. waaw asalaamaaleykum yéen mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ndogo moom ñëwoon nga fi daaw bi nga ñëwee nii la mel mbaalu ko raw ren ji dafa raw di ñaanal nag sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di mu yàgg fi te wér di ñaanal sëñ Talla mu yàgg fi te wér te yan bu oyof tooy nag. moom rakkam yi mu ko àndal yëpp sëñ Fallou Baye ak sëñ Mamadou ak sëñ Mame Cheikh ñoom ñëpp ak sëñ Mourou Anta di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom waañ mi nag ni mu daan doxee rek la doxee ndax heure bi daan xëy ba tey moom la ñuy xëy 6 heures moom fii la ñuy fekk chaque jour maa ngi soxna yi ak euh, waa kër sëñ taala yëpp soxnaa mi 6 heures de matin fii la ñuy fekk bu ñu julli ñu ngi ci ëtt bi bu ñu ñëwee bu ñu taalee lampe yi génne pomme de terre yi sëñ Xaadim moo koy génne ñu xooli pomme de terre yi xooli soble yi fejar daal di raxas yàpp yi muusal buñ musalee ba di ma joxe dawlin ñu taal waaw noonu la ñuy def. bu euh, ngeen euh, ñëwee maanaam dafa am organisation bu fi am kenn ku ci nekk ak ca la nekk mu mel ne ku ci nekk am na fu ñu la féetale foo xam ne soo ñëwee rek jëru ngay laaj fa nga jëm. loolu ba tey am na ndax kenn ku nekk xam nga sa jëwrin bu dee cinul baa am di sekk la daaru mën naan yaa am yaa ami géey mooy cinul jëwrin di cin la bu dee yaa kumbatin mooy jëwrin yaa aram géey bu dee yaa sëñ Fallou Baye yaa Kumba Diouf mooy jëwrinam bu dee yaa meen mbay soxna sëñ Taala ba tey yaa kii yaa dëgër Kebe mooy jëwrinam noonu lañ ko doxale kenn ku ne boo ñëwee rek yaa Daba Sall yaa Fatou Ba boo ñëwee kenn ku ne da ngay xam sa cin nga jiitu fa man nag maa jëwrin maa nga say bi jëwrin ci waañ wi ndax diw gi maa koy nat maay nokkas maay séddale maay séddale ndugg bi kon yàlla dañoo boole ñu boole lépp muy benn kenn ku ñëw nag boo ñëwee xam nga li nga war def su ma ñëwee tam maa ñoom ñooy bokk xolli bi ñooy bokk fajar bi ba taal jot ñu taal mu joxe li may jot joxe ma joxe génn joxe waaw. ñuy dégg ñu naan euh, ndogu yi euh, des na ko togg ba mu jeex te du te kenn du ci ñam rawatina soxna yi koy togg. Ah, waaw ndaw moom loolu xam nga ko yow yow Baye Fall nga sëtu maam Cheikh ndaw ta laaj te loolu <laughs> sëtu waaye ñi ma jàkkaar lool ñoo koy laaj. kon ñi nga jàkkaar lool nuyu nañ leen ziar leen di leen wax na ñun amuñu jenn yitte amuñu yenn soxla. ndogu sëñ Bamba yi rek yu maam Seera Fall yi yu sëñ Taala Ablaye Fall Ndar yi nga xam ne da cee am mbégte bi saabu bu jote rek sëñ Taala xolam nday seddu guy mbooloo mi xolam seddu guy rakkam yi xolam seddu guy ñu koy togg ci anam yu sell nag yu set jàpp ba sell am ci yéene lool bëgg sëñ bi lool fonk ko lool di ko def ni mu ko bëggee suñ ñëwee dañ koy taal ci ni mu ko bëggee togg ko ba mu set ci ni mu ko bëggee ñëw jébbal ko ko suñ ko ko jébbalee mu dem jémbal sëñ am ni Modou Mbène sëñ am ni Modou Mbène dem yóbbu sëñ Mountakha ànd ceeg te ko ak kontaante seen wecc rek lay àndal moom. foofu sax laay mu mel ne aw ñam la. Hmm. tey ci ku tedd la jëm. Hmm. te dañoo wax ne ki gën da koy jox li gën. mu mel ne euh, gis nañ ni ngeen ni ni ngeen di defaree bool yi. Hmm. ak euh, ni ngeen koy muure mel ne li ngeen koy muure sax ku ko gis dina xam ne lii am na am na am na kii bu ci am. liñ koy muure de maire yi ñoo koy fóot ñu nga ne sama samay mbaañ lañ kenn ku ne ak li nga war a def mooy li nga doon laaj rek ñi war a raxas bool yi dañuy raxas. ñi war a fóot dañuy fóot ñi war a café dañuy café dañ ko organiser suñu waañ noonu xet gi ngay wax nag moom duñu xeeñ waxoon naa ko daaw dinaa ko waxaat ren mbóot la Cheikh Ibrahima ñu ko defal dañ koy togg ba mu aw yoon duñu xeeñ duñ ci bëgg sunu xel du ci nekk loolu moom du ci ñun ci sëñ Touba la ak Cheikh Ibra ak Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh Motaala ndax am na ñoo xam ne boo doon togg dara sa kër tey foo romb mu xeeñ fa waaye ñun de wallahi ansim laa lay waxal dinañ ko togg pare te xet gi duñu xeeñ xale yi ne àndal duñ ci bëgg te yéene lay àndal ak mbégte nga xam ne sëñ bi rek kan sëñ bi rek a sëñ bi waaw sëñ bi rek mooy sëñ bi. nga yàgg jiite waañ bi soxna yi yàgg ànd ak yow ndax njiit ñëpp ñëpp xam nañ ne yombul waaye gis naa ne koo ci woo ne ko ñëwal mu ñëw loolu loolu nan la dem. Mm, ba tey maa fi gën a nekk xale moom maa ci gën a nekk xale sëñ bi sama nijaay la sëñ Talla Ablaye Fall Ndar sama nijaay la mu bëgg ma jox ma cër ci kër gi lool waaye ñi bi ma ko joxeet ñi ma àndal dañ koo nangu. ndax man nañ ma ko bañ a nangul ndax maa fi gën a nekk xale waaye wóor na Sëñ Ibra ñu ngi ni taxaw ñoom ñëpp ñoom mag wallaay asim ku ma ci waxoon ne sëñ bi nee na nangam wala sëñ bi yónni ma ne bindu demal na nangam comme ni mu la def tey ne demal ci soxna bindu Njaay ca waañ wa nga waxtaan ak ñoom ñëpp lañ cee ànd ak man kenn amul lu muy xalaat ci man wala lu muy xeeb ci man daal jox lañ ma li ma sëñ bi jox ma ànd ko ak ñoom it ñu nangul ma ko lool ñoom it ñu nangul ma lool ma nangul leen ñu boole lépp ndax xol yàlla da ko boole sëñ Mourou Ablaye Fall ndax boole ko nag jàmbaar ji yalla yàlla yokk leen taaf ñu ci barkeem ndax lépp mooma ñun moo ñu toqi togg nañ fa mat fan fanweeri at ba jëm ñeen fukki at bi mu làqoo li ñëw ci sëñ Ndar mooy mu bëgg magam ja fonk ko taalibe gam doon doxee ko sëñ Ablaye moo tax taalibe yëpp nangul ko topp ko barke maam Serafal di ko doxee ci rajo laay wax wallaay asim dafa oyof yaatu bëgg taalibeem nangu ndigal ñëpp nag moom la moom la ñuy dund waañ waa ngi nii jigéen ñi fi nekk soxnaam yee tam gis nga leen jigéen ñaa ngi ci waañ nag mën a togg yéene ñu ko am jàmm am salaam kenn du xuloo kenn du xeex kenn du ñu àtte loolu moom sëñ bee. fu ngeen toll. fi mu toll nii fi mu toll nii moom saaf nañ pomme de terre ba pare ba saa saaf nañ yàpp ba saa pomme de terre ba teggi ci ni bi ngay ñëw yaa ngi fekk ñu teggi ci ni léegi sauce bi lañ doon teggi waaw. ndog yi lu muy doon. aatu ah, tufe lay doon moom yàpp ak pomme rek <laughs> xam naa njóobeen ni moom njóobeen ni moom njóobeen ni moom bu ñu ko déggee ak kalaasu waa kër Mamadou Cheikh Mamadou Fall may moom seen xel dana ci nekk kalaasu Bada Fall gi ñoom waaw ndax xam nañ ne moom heure bu ndogu ñoom seen xel du nekk fe ndogu rek ndax bëgg lekk <laughs> ñu ngi lay ñaanal jàmm nag sëñ Mamour mi tam ñu koy ñaanal jàmm di ñaanal jàmm ak tawféex ak tey si di mu julit di ñaanal waa kër Cheikh Mamadou Fatma ak maam Cheikh Mamadou Fatma yëpp ak maam Cheikh ñeeng gébb sama mbokk yëpp nuyu naa leen ziar leen di ñaanal sama borom kër bi moom it yàlla bàyyi ko fi te bàyyi ñu fi sëñ Mountakha yéen oyof tooy sëñ Talla Ablaye Fall yéen bi oyof tooy ak njaboot sëñ Ablaye mboolem mu jullit di tuub tey jégalu tey yéen saa su njëbbal maa ngi jégalu wasaam jërëjëf naaw. Safafa xaal yaay borom leer la faala Musa Faal Faal yaay borom Moustapha Fall xaal yaay borom leer laa gi nga xam ne mooy kàddu sëriñ bi di bàyyi ko fa mu daan bàyyi ko ki yor kàddu sëriñ bi di sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Abdoulaye Fall Ndar mu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ci turu Cheikh Mor Talla ñu ngi siyaare ñëpp sëriñ bi mu ngi nuyu ñëpp. tàmbalee ci rakkam yi soxna Mbène Fall ak sëriñ Modou Anta Fall ak sëriñ Modou Mamoun Fall ak sëriñ Maam Cheikh Fall ak soxna Maam Say Fall ak soxna Jee ak rakkam yépp ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi sëriñ bi mu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax a baax ndax sëriñ bi xam na na yéen ak ñoom yéen a bokk liggéey bi te tey it waxtu wu nekk def ngeen seen ite ju mat sëkk kon sëriñ bi mu ngi leen di gërëm ci loolu ginnaaw loolu nag ginnaaw loolu sëriñ bi mu ngi sant bu baax a baax di sant mbokki taalibe yi ak gaa yépp di leen xamal ni liggéey bi liggéeyub sëriñ Abdoulaye Fall Ndar la kon nañ ci jëmbat fulla ak fayda te xam ne mooy ndigal li lépp luñ ci man nañ ko ci def sëriñ bi nee na lu ci waaye def boppam rek la ko defal ndax sëriñ bi nee na kenn defalul kenn dara lu waay def sa bopp nga ko defal yow la fa nekkal itam bu ëllëgee boo demee fekk ko fa kon nag nañ ci taxaw bu baax a baax boole ko ku yar ak ay teggin sëriñ bi nee na nañ daan doxe rek waxtu wu ne sëriñ bi day bëgg ñu di ko yokk wante bëggul muy wàññiku ndax ak taalibe dafa nekk loo xam ne dafa metti lool ndax ak taalibe am na ñu koy méngaleeg dee ñu wax ni ka nga xam ne mooy defar ku wàññiku ki ñuy defar du wax ne jëme leen ma fenn fu neex ki koy defar rek fa la koy jëme loolu lañ méngale akuk taalibe kon nag ak taalibe lu metti la ndax boo joxasee joxe sa bopp jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira ñu ne la waxaat ko nga dellu waxaat ko ba muy ñetti yoon dañ naan mag nag du juum ñetti yoon yu tegaloo kon kii li muy wax dëgg la mu ngi ci moom kon nag loolu mooy buum goo xam ne fuñ ko nas ba mu àgg dañ ko raw ba mu àgg nga takk ko ci sa baat daat koy jox sa kilifa mooy baat boobu kon nañ ko fonk te xam ne amuñ lenn lu dul moom nañ ci gën a góorgóorlu bu baax taxaw ci bu baax def ci ay itte bu baax te xam ne alal boroom du ko sàggane ndax alali maam Cheikh Ibrahima Fall mooy ak taalibe ak nangu ak yar saw làmmiñ ba doo ci wax lu ñaaw yar say cër loolu yi mooy alali maam Cheikh Ibrahima Fall képp koo xam ne ab taalibe Baay Fall nga na nga xam ne loolu yi war na la war nga caa nekk bu wér kon waruñoo dégg na yow yaafa fa dàq xuloo wala yaa fa dàq xeex wala yaa fa dàq wax lu ñaaw loolu jóge na ci taalibe bokkul ci ak taalibe kon nag sëriñ bi mu ngi gërëm ñépp di gërëm sëriñ Omar Fall mu Baye Ndaam Fall Baye Ndaam Saliou Fall di gërëm sëriñ Gunda Fall moom sëriñ Mbay Fall moom sëriñ Mot Saliou Fall moom maam Saliou Fall kon nag kon ñoom xam nañ ne kër gi ñu ne seen kër la ba tax na bari nañ fiy tànk lool lu fi xaw lépp xam nañ ko kon nag seen alal rek moo fi nekk jërë ngeen jëf sëriñ bi sat na leen bu baax sëriñ bi nag nee na mu ngi sant sëriñ Aliou Thioune di sant sëriñ Mamour Ndaw ndax sëriñ Mamour yabal na fi rakkam muy sëriñ Ablaye Ndaw mii ak sëriñ bii nga xamante nii moo yor caméra bi sëriñ bi nee na mu ngi leen di gërëm di leen di sant te xam ne seeni taxawaay rafet na lool lool lool seeni taxawaay rafet na seeni taxawaay rafet na bu baax a baax gis na ko bu baax a baax mu ngi leen di ñaanal ak mucc ak fan wu gudd akuk wér barab bii nag ba sëriñ bi tàmbalee ak léegi bis bu yàlla sàkk dees na fi wàcce ab kaamil def ko addiyey maam Cheikh Ibrahima Fall ban dooree ba léegi loolu nag liggéey bu réy la ndax alxuraan fuñ koy jànge képp ku koy dégg walla nga koy gis walla nga am yéene man ko suñ borom dugalu ko ci yow kon fay googu noonu di nga ci am da nga bokk ci fay googu kon alxuraan lu am solo la ñu ngi ñaanit sëriñ bi yàgg koo def ñu yàgg koo ànd ak moom ak njaboot gi yëpp te jox ñu barkeeb alxuraan dooley sëñ Abdoulaye Fall Ndar sëriñ baa ngi sant bu baax di yëkkati kàddu yoo xamante ne nag da koo jëmale ci mbokkam boppam bis bu nekk mu ñëw ànd ko ak moom muy soxna Sagar Touré sëriñ baa ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal lépp lu am yàlla nañ ko bokk ak moom ci dooley Cheikh Abdoulaye Fall Ndar ndax ab taxawaayam rafet naa Moustapha Fall Fall yaay borom leer la Fall la la la Moustapha safaba borom baax faal faal yaay borom war a mbaax faal faal yaay borom tey lañ demoon fële ca leen kër sëñ Ablaye Fall Ndar euh, doon leen jëlal ndogo yi comme niñ ko baaxoo defee ci mboolem buntu kër yi euh, waxtaan nañoo ak jëwrin yi waaye waxtaan nañoo ak ne ci waañ ba waaye ànd nañoo convoi bi nag jëm si fii nga xam ne mooy Touba Jannatul Mahwa fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall gi Serigne Talla Ablaye jébbal eh, Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda ay ndogom waaye ñu dellu si waat nag fii nga xam ne mooy kër Serigne Ablaye Fall ndar dégg ngeen turu yàlla yi mbokki taal bi ñu ngi noonu di fas yéenee ñaan waajalaat suba rek lu dul jeex eh, luñ ci am rek du doy moo tax nag dañuy fas yéenee ànd ak yéen. Eh, toppal leen weeru koor gi yëpp rek ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ak mbooleem seex si ak mboolem taalibe kon noonu la ñuy santaate bu baax tey gërëm. Eh, Serigne Mamoun euh, Mbaw mi nga xam ne moo ne woon ci caméra bi eh, ci ak euh, woyefam ak ci ak euh, yaram ay teggin waaye mën a dund yoon wi tamit eh, ñu ngi leen ci ñu ngi ngeen ñaanal ko baax nag te fasaaleel ko liggéey bi bu rafetee du ñun moom la lépp lu ngeen gi ci image yi rek moom mii la kon ñi ngi dem ak sëriñ bi di leen bàyyi sëriñ bi li sa jib daawati bi maa faaxa sanni wa bi maa faaxa rabbi ku la sunu